Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. maa ngi di ziare ci wéru tëdd bi mu nekk rawatina barab bu tëdd bi mbokk daje. wa maa shahidna illaa bimaa alimna. mbokk yi man la Alaaji Baara woowoon. ni ma maa ngi ñëw Ndakaaru. dama bëgg nga yóbbu ma kër Alaaji Mbackiou Faye ma ànd ak moom ba kër Alaaji Mbackiou Faye Alaaji Mbackiou ne tey ay Serigne Touba moo ñëw sama kër maa ngi tàmbalee def nag lu mu mënul ndax ku defal Serigne Touba loo man mu defal la loo mënul Alaaji ni ma nee coowal ñaari kër yi pàkk yi laa bëgg a def seet keroog oto bi Alaaji moo jiitu ànd ak président Pape Diop ànd ak Mbacke Faye ak man mii li ñu koy ci parti bii wax dëgg man li ma tibb suuf alaaji teg ci baaraamam ba ni fii la ñu fii la daañu wax Mbacke yu nag ni kuy ñëw nag kuy dikk nag fekk kuy dem na la bàyyi kañ la tabaski ma faral di jëlaat ci ndigal alaaji tabaski li ci dikk def kañ ci tabaski ba nekk suñu diggante tabaski fukki fan ak juróom-ñaar rek nga am bu ñu a tëjee àll ci rek mën naa ko ne bu àll ba jaar da ngeen tàmbali liggéey man nag danaa leen wax ne leen dana sotti cawee ba ni ngeen ko ma tiba suuf mu ñaan ci ma def pompier tàbb ko sept mètres bomb bu dee soixante mètres cube heure ma ni àll ji amul morom ñu am ci une semaine di génne ndox alal ji mag yi loolu la jënd juróom-ñetti téeméer yi dara suuf di fekk ko fi mën si dina leen bëri alal ji moom nag bu ñu woon pàcc bi du am kon tey ñu ngi fi toog tey nit jox la moom du wàññi dara ma ni cent millions yooyu ñu wax ci muusi trois mu guloo dañ ko def moo ko yëkkati ci teg sama loxo ñu ko joxal nag bi waaw ku joxe sa kàddu joxe pàcc bi joxe sa xaalis ndax joxe ndax boobu war a ko war a kon dama leen wax ñu leen bokk taalibe murit yi fii ci Massalikul Jinaan 2009 la Alaaji teg xeer bi wax ma ne ma nag Serigne Touba lay kilifa bu ne am na lu leen taxaw maa ngi wax ñu boobu ni dara du leen yàqal liggéey bi mës a taxaw ba ñu toog suñu dañu yàlla tey kon bu ñu demee ba ñu bis bi dañu ko tuddee alaaji baara faaw xamoon naa ni nii lay mel sëñ si la pare faal nag bisu keroog ba léegi dana xam ni ku jëlam lu fi waay di def wala ba koy xam dëgg la wax dëgg la waroo fàtte alaaji bu dee parti wala nga ko tax fii bu dee kat alal moo ko def kon ñëw na fii la moom la président de la république doon waxal kon bu ñu demee ba àgg si fii nag dafa bëgg ñu ñëpp bàyyi xel fii nga xamante ni moom la xamee ko kon nag Serigne Moustapha yow day mas naa la ko ci sa bàyyi mu ni ma Moustapha di mën a tere kenn ñi ma naa wéetale moom ku ko wéetale ma ne Moustapha yow mën na la nga boot say rakkit lañu xam nga bàyyi ko ñoom li mu li nga xam nga bopp ko ñoom kon nag faw tey ci place bi mën nga fee dox ñu ngi lay ñaanal yàlla barke jumaa ji ak borom yàlla may def fan bu gudd may ci dara ji Alaaji Baara soo gisee ne ma jël kàddu ji nii dama ne lamb bi nekk ci maa fekkee mooy ji man nii maa fekkee jëw li tax ci cër bii kenn joxu ko woon Alaaji ji Alaaji Baara ko defoon liggéey bi dama koy liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla ci doy demee ba nga xamante ne moo xool la ma def ñoom mu ni ma sama signature sama dugg ak samay dal du lu muy xaj nit lu muy jox nit dinaa ko wax kon alaaji maa ngi wàcce kàddu gi bu sëñ Bamba nee na sama siis bi sama ginnaaw ba sa di jëkk dool Cheikh Modou Gëni sama waaj rek ko yëkkati kàddu moo ma ni woon nit nit bu ma gën a jege si Touba alaaji Maara moo ma ni woon nit bu ma gën a jege si Touba demee na ci Touba dem nañ ca barab xool alay baara bi di ginnaaw suñu Fallu nekk ak moom ci diggante ba sëñ bu baax kon nag bu ñu demee ba nga xamante ni barab bi taxaw nañ fi ma sañoon liggéey bi day egg te kenn kenn kenn ku firigu bu ñu wax naa ko sëriñ bi da noppi ay sëñ borom ay sëñ bu baax tàmbalee nañ ko waa ji bañ waa ji egg minute bu réew minute xëppul alal lépp baax na waaye alal yi baax na boo def lii ba ma gën a seeral ko mbooleem ñi fi ne di wax nag ni jëwriñ ñu ngi ñëw léegi ndax bis bi ñor na ko dañoo wàcce ñaari conteneur yooyu mooy tap yi ñu lal ci jumaa ji te tap yooyu dix mille mètres carré la te la koy lal yombul xel xel boo koy lal waaye bu ñu demee ba wax fi toll fii nag sëñ Fallou sëñ Alaaji Baara di sëñ Fallou di sëñ Tuubaa taxaw liggéey bii ba liggéey bi mel nii barab bii dix ans ci ginnaaw ku ñu woon kaay toog fii doo fi ñemee toog dama ni fukki at ci ginnaaw kenn ñi wut a toog fii barax bi mbëtt yeeg jaan yi man ci barab bi laa door a xamee ni mbëtt ak barax duñ dox guddi kon alaaji amul morom la mu waxoon tey ni ci suñu bët kon de barke li Cheikh Ahmadou Bamba alaaji maa mu liggéey liggéey bu rëy ñuy tudd nag suñu bëgg la loolu may nekk ca kàddu bi di leen wax leen bokk jullit yi bokk taalibe yi waaye yàgg woon le neuf novembre la woon moo teewal xeer wax ni dina am kon Alaaji Baara yàlla yàlla doole leeral di félicité nag jàmbaar gi nga xamante ni moom la ko jox mbàkk yu fay nu mel ba liggéey liggéey bii Alaaji woon Alaaji boo ko joxee noonu ni ko yow la kon nag ka la joxe noonu koo taxoon la mu takk la lay takkal koo takkoon la mu takk la ngay takkal te boo gisee mbokk tari bi ma xam ne bisu tey bi billahi ku paas bi ci sa aajo dana faju ndax alaji baara moo mel noonu sixième xalifa sëñ Touba di nekkal xalifa sëñ Fall taxawaayu Masaalikul Jinaan mu taxaw ci teem kon bu ñu demee ba liggéey bi mooy borom man it ma wax ko man maa fekkee mu ne woon président pàcc bii def ko ci bi la fii président dafa ko def ci tur waaye nag eh dafa di def ko ci tur Cheikh Ahmadou Bamba kon nag kookee yàqul dara liggéeyal na ñëpp kon alaajee ko li gën a gën mooy bëgg naa bokk ci taalibe bi yéen ñëpp kenn ku ne jàpp ci salaatu ala nabi ñu def ko addiyee alal ji baara di tax tax yi tax te du taxaw ni maa tax bu la taxawee say tax da ngay taxaw ni ko yaa tax te lii alal ji wala nag di ñaan di ñaan la ñu mbakk yu ci liggéey bu rëy bii mu taxaw mbakk yu bokkul mënal bi waaye nag